ñu ñëw ci nettali juróom téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar am na ku mas a ñëw ci Sëriñ Tuubaa xaada lahu ma maxtaara lahu ni ko dama bëggoon nga ñaanal ma ci sama doomi nijaay dañoo bëggante mu bëgg koo denc sëriñ bi ni ko loolu jërul ñaan lu jigéen ñett yii la ki nga xam ne yàlla ba ba ko yàllay bind yaa tax ak ki nga xam ni ba mu koy bind taxoo ak ki nga xam ne danga cee am kaneen am ci wàllam ki nga xam ne ba mu koy bind ba ko yàllay yi bind yaa tax kenn mënu la ceetee jot ki nga xam ni ba mu koy bind taxoo kenn mënu mënu mënu mënu la cee tax a jot ki nga xam ne da nga cee am wàll keneen am ci wàll lu mu yàgg-yàgg fi yow da ngeen tàqali ko keneen foog ko sëriñ bi daa xam boroomam lool moo waral mbir yu leer nañ ci moom déggal ni muy delloo waa ji ci yàlla subhaanahu wa taala di ko xamal ni sunu borom subhaanahu wa taala noppi na ci mbiri lépp looy wut dee ci ànd ak ak dal tey bañ a def mu sunu borom gërëmul fi mu ne ñu bëri dañuy jëf jëfiin woo xam ni li ñu tegtale mooy xëccoo mooy maye dara te déedéet yàlla rekk mooy maye qul illahuma malikal mulki ila axiril aaya